mbokk yi incha allah ñu ngi dajawaat suñu téere bi nga xam ni mooy bulughul maram bu alxaafis ibnu xajar rahimahullah ñu yegsi woon ci téere bu mujj bi kitaabul jaami' yegsi ci li ñuy tuddee baabu tarhib min masaawi al axlaaq mooy buntu moytuloo ca la nga xam ne mooy jukko yu ñaaw ya jëloon nañ ca ay xadis yu takku ba tey ñu ñëw ci xadis yi nga xam ni ñooy tëj bunt boobu su dee mool bu mel ne bi ma yor nga yor maa ngi ci xadis mille cinq cent trente-sept mooy wa an abi bakrin siddiq radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yadxulul jannata xabbun mi ngi noonu kon ñu ngi sant suñu boroom di ko jaan mu julli ci yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey jii mooy dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier 2019 di tombeeg ñaar fukki fan ci weeru jumaada al ula ci atum 1440 ñuy jéggalu it rawatina ñuy déglu audio bi ci loolu nga xam ne moom la ñuy dégg ci suuf mi ngi noonu ala kulli xaal ñu ngi wa abi bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانف يوم القيامه يعني الرصاص اخرجه البخاري وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس اخرجه البزار في اسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واغتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه الحاكم ورجاله ثقات mbokk xadis yi ñu jot a jël bi ci jiitu wa an abi bakrin siddiq radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yadxulul jannata xabbun xabbu mooy truand kuy ndox nit ñi ay xaadic wala baxiil ak koo xam ne dafa nay wala sayyiul malaka ak ku ñaaw na muy moome axrajahu tirmidi wa farraqahu xadisayni wa fi isnaadihi daaf mu ne tirmidi solo na ko ci ñaari xadis doon kene ni sukkandukaayam ba dafa doon xadisu daif xadisu daif mooy xadis boo xam ne fu mu jaar ba yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ca ñoo xam ni seenug wér des na loolu la ñuy wax xadis bu lompañ kon kenn du doggu ne ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la jóge doonte ne ni bokk na loo xam ne moom lu wér la islaam bëggul warkat islaam bëggul warkat ca muy truand ku mel ne Omar ibn al-Khattab daana wax ni man day du ma truand waaye nag truand du ma truandé ay pexey truand xam naa ko loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax mooy ci bakkaar yi gën a bon ca la bokk mooy di war sa mbokk julit bokk na ci loolu itamit ki nga xamee ni nii dafa doon ko nay doonte ni xadisu nay jàngoon nañ ko ca gannaaw yeneen bi alayhi salaam ni mi ngi leen di moytuloo ashuha nga xam ne forme la ci nay ca it nay bay tee dugg aljanna mooy nay total ca mooy nay ba naya génne zakat nay ba naya jox nit ñi àq ba nga leen yoral da doon lañ la liggéeyal wala bor yiñ la lebal nay ba naya delloo dénkaane yiñ la dénkoon loolu mbokk ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk amma ñaaw noy moome mooy ñi nga xam ne dañu yor ay jaam da ngay gis ne ñaawal jëm ci jaam yooyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lu mujj dénk xeet bi mooy assala assala wa ma malakat aymanukum maa ngi leen di dénk ngeen fonk julli waaye maa ngi leen di dénk li yàlla teg seeni loxo ci ay jaam ndax yow jaamu yàlla nga moom yàlla nattoo ko mu ñëw nekk sab jaam na nga jëflanteeg moom rek soo moytuwul noonu la yàlla y jëflanteeg yow ca mooy soo ñaawalee jëm ci moom loolu mën na laa xañ aljanna bu dee xadis bi nga xam ne moo ci topp ki koy nettali mooy ibnu abbas radiallahu anhuma qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تسمع حديث قوم كيف دغلو وخي أو نت وهم له كارهون te ñoom day loolu dañ koo sib bëgguñu woon nga dégg seen wax subba fi uznayhi al an yu ko yowma alqiyama daañu sotti ca biir noppam li ñuy tuddee aanik yaani rasaas ca mooy beteex dañ ko ruyal sotti ko ca ay noppam bokk julit xadis bi ñu yonent bi alayhi salaam di tëkkoo sunu jamonoy tey rek ñoo ko war a dégg ñépp mboole seen yàlla daf ñoo nattoo portable yi ñu mu nattoo ñun imaam ñi yàlla nattoo it nit ñi dañuy wax seeni mbiri kër gis nañ ne tey fitna yu bari mi ngi jóge ci portable yooyu ca mooy bàyyi ba sa borom kër génn nga ubbi portable am di xool ñan la doon waxal yan message la jot wala bàyyi ba sa soxna génn nga ubbi portable am di xool ñan la doon waxal yenn message la jot loolu islam da koo tere mooy tajassus agent secret ca boo muytuwul rek yàlla nattu la ci bokk doomu aadama yi ñun ñëpp d'accord nañ ne bés bu nekk nit woo la wax ak yow gannaaw ah baal ma dama juum noonu it la ñuy lancer ay message fekk dañoo juum noonu la ñuy lancé ay vocal fekk ne dañoo juum léegi nag su ubbee sa portable lu jëkkër gis ci benn message buy wax ci wàllu mbëggeel nga ubbi sa portable lu jabar gis ci ku koy woo ci benn rendez-vous yooyu mbokk da ngay gis ne nattu la bu la yàlla subhanahu wa taala mën a nattu amul kenn ci yéen ko yor portable lu dul mas na jot message boo xam ne waa ji koy ne dafa juum loolu kon ëpp naa def di xool sama soxna kom doon waxal sama jëkkër kom doon waxal am maa la doon cosaan bi portable xewagul mooy nga dégg ay nit di waxtaan nga dégg ay nit di waxtaan nga ñëw di déglu ba xam li ñuy wax lu mu doon ca ñoom bëgguñu nga dégg seen wax jooje rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dana sotti sa nopp yi betex bi ñu réyal yowmal qiyaama mu bokk nag lu gën a garaaw ñiy déglu waxi nit ba pare di ko tuxal ca mooy bari na ay nit tey yow yaa ngi nekk di leen téléphoné ñuy enregistré téléphone bi wala jël audio jàmbur yóbbu ko ci keneen koo xam ne moom bi mu la yónnee audio bi bëgguloon kooku dégg ko yow nga transféré audio bi yóbbu ko ci keneen yooyu yépp mbokk dafay dugg ci biir xadis bi noonu mu cay dugg it la cay duggee la nga xam ne mooy di xool ay nit foo xam ne bëgguñu nga xool leen fa dañuy tudde ci wàllu yëddu bokk na ca ba tey moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam nee na ki dem ci kër jàmbur nekk ci xar-xaru bunt yi wala xar-xaru fenêtre yi di leen seet nee na buñ jëloon ràbb fukk sa bët sa bët boobu perte na kenn du ko diya loolu kon ñu xam ne mbokk islam dafa protéger ak doomu aadama nit ki bëggul nga dégg ay waxam bàyyil ay waxam nit ki bëggul nga gis ay jëfam bàyyil ay jëfam jalgati ba nga koy jalgati nag mën na laa dural fitna mi ngi noonu bu dee xadisu ñetteel bi anas ibnu malik moo koy nettali radiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس أخرجه البزار بإسناد حسن suñu yonent alayhi salaatu wasalaam nee na doomu aadama bi texe mooy ki nga xam ne day contrôler bakkanam di xool jukko yi ca nekk te yàlla bëgg ko muy xeex ak bakkanam boobu ngir mucc ci ba loolu yóbbu ko ba défaut ya ñeneen ñi nekke loolu du ko toppatoo ci ndax bakkanam day na ko sëkk ca mbokk jullit it bakkan dañoo war a sax di ko contrôler fu ñu mën a toll di xeex ak moom fu ñu mën a toll di ñaan yàlla musul ni ci ayam fu ñu mën a toll rasul sallallahu alayhi wa sallam néew na ay xutbaam lu dul lam ko daan ubbee gannaaw ba mu sante yàlla julli ci yonent bi wa nauzu billahi taala min shururi anfusina ñi ngi yà ñaan yàlla musal ñu ci suñu ay bakkan yi bakkan ma ngaag rëy ma ngaag iñaan bakkan ma ngaa ko xemmem loo xam ne ni yàlla xemmem loo ko bakkan ma ngaa ay ngistal bakkan ma ngaa leneen yooyu nag doomu aadama bi dafa war di xeex ak moom di nemmeeku boppam loolu bu dee itteel na la ba nga bàyyi ayib bi nit ñi yow texe nga moo tax yonent bi ne tuuba tuuba mi ngi jóge ci tayyib loo texe xayaatan tayyiba ki nar a texe àdduna ak àllaaxira bokk nañ koo xam ne nii la nit ñi def yoonam néew ci moom itti woowu lu dul mbiru boppam donte ne ni ñu ngi dund it ci jamono boo xam ne yéen ñëpp a gën a xam li ñu yàlla nattoo nattoo ko woon suñuy maam ñooy dund jamono internet bés bu nekk nouvelle yaa ngi tuuru waaw ministre tel député tel politicien tew artiste tel masamba ba géejawaay kee Kédougou kee nangam façon lu nekk lu nekk mi ngi tuuru ci doomu aadama yi ñu jël seen temps yépp yépp yépp jagleel ko loolu fàtte seen bopp yeneen bi alei salam nag texe woon na ki nga xam ne moom ayib yi nit ñi nekk loolu moom yénum niwu ci mbokk nit ki la muy ayiboo kenn du la ko laaj yowmal xiyaama lañ lay laaj yowmal xiyaama mooy sa ayib bi bopp moo tax yonent bi alei salaam ne bokk nañu texe dëgg dëgg dëgg ñi nga xam ne la nit ñi def seen yoon niwu ci ñoom daal ña ngay contrôler seen bopp guddeeg bëccëg di xool ba xam ñoom ci lan lañ nekk loolu mooy la nga xam ne mooy xadisu anas boobu bu dee xadisu ibnu omar radiallahu anhu bi ci topp qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man taazama képp ku màgg màggalu fi nafsihi ci bakkanam waxtaala fi mishyatihi puukaréew ci aw doxinam laqiya allah wa huwa alayhi ghadban dana dajeeg yàlla fekk yàllaa ngi mere jëm ci kawam axrajahu alxaakim wa rijaluhu athiqat mbokk suñu borom yàlla mooy alazim moom rek mooy ki màgg looloo tax képp ku bëgg a jël palaasam boobu di màgg-màggalu di kawe kawalu ci kaw nit ñi jàpp ne yaa leen gën ku mel noonu yàlla bëgg ko bokk na ci alkibr te bokk na ci bañ dëgg ak xeeb doomu aadama yi noonu la ko yonent bi firi bañ dégg dëgg xeeb doomu aadama yi loolu ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk bokk na ci it di puukaréewu ci kaw suuf imma alal ja nga yor pal ga nga yor taaru ba nga yor tax ngay puukarewu ci kaw nit ñi comme la nga xam ne noonu la qaaruuna meloon keroog bi ko yàlla di mbugal suñu borom mu ne xaraja ala qawmihi fi zinati ma nga génn ak taaram ba ci kaw nit ñi loolu muy contraire jaam yi yàlla gërëm di ibadu rahman suñu borom mu ne yamshuuna ala al ardi hawna boo leen gisee ñuy dox ci kaw suuf dañuy ànd ak dal dox gu àndul ak pant àndul ak puukaréew àndul ak benn réeréelu yamshuuna ala al ardi hawna ànd ak toroxlu amma képp koo xam ne da ngay puukaréewu suñu borom yàlla subhanahu wa taala boo dajeeg moom yàlla day meer ci yow te bokk na ci li ñu waxoon ci dars yi passé jullit day saxalal yàlla lépp lu yàlla saxalal boppam bokk na ci loolu suñu borom nee na day kontaan ci jaamam yu baax yi ñu ne yàlla day kontaan day mere jaamam yu bon yi ñu ne yàlla day mere mu des nag naka la yàlla di kontaane loolu ñun xamuñu ko naka la yàlla di mere ñun xamuñu ko ndax laysa ka mislihi shay'un dara melul ne moom waaye daal lam saxalal boppam moom dañ ko ko saxal loolu kon mooy aju ci yooyu nga xam ne jotoon nañ ko jël ci ay xadis
وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وقال حسن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه اخرجه مسلم
kon hadis yi ci tege ba tey bu njëkk bi ki koy nettali mooy sahl ibn saad radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان lii di ak yàkkamti day mi ngi jóge ci sheytaan axrajahu tirmisi wa qaala xasan mu ni loolu xadis la bu baax la mbokk gis nañu ni ab julit suñu boroom dafa bëgg mu doon ku teey di bañ a gaawut masalan yàlla ngi ñu wax ci suratu xujuraat يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبي فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ay yéen julit bu leen dégg fu ngeen jote information rawatina ci ñi nga xam ni seen diine dëgërul rek ngeen commencé ci réagir commencé ci wax loolu day bu ngeen koy def ca too toogu leen settantal mbir mi leerlu ko da ngeen dal ci ay nit tooñ leen wëlbati ko wàdd rëccu loolu kon mbokk julit lépp loo xam ne dikkal na la ngal la way bala nga caa réagir teeyal lépp luñ la wax ci doomu aadama bala ngaa réagir xoolal ba xam lan mooy moom position benn yonente gi nii bokk ci yonent yi gën a mag ci yonent yi yonent yàlla daawuda alayhi salaam ñaari nit ñëw nañ ci moom di attewoo ak moom kenn ki ñëw na ko kii daal moom am na juróom-ñeent fukki xar ak juróom-ñeent oo ma lu dul benn xar mu la jël mu witt ne fokk ma jox ko sama benn xar bi mu ne ko tooñ na la de tooñ na la de ci ci laaj gi mu la laaj sa xar bi loolee mbokk mooy erreur bu grave bu Daawuda def ba suñu borom yedd ko ci lu waraloon loolu mooy yow attekan nga su ma sàmba ñëwee wax ba pare bàyyil ba ma dem ba wax su waxee ngay doog atte mais warula atte ci benn wax loolu it day valable ci yow mi nekk ci kër gi man ngaa liggéey ba wàcc kenn ci say doom nettali la dara man ngaa dem ba ñëw sa soxla nettali la dara yow chefu société bi man ngaa ñëw ñu ne la ah diw nangam waaye ngal la waay bala ngaa jël benn décision wool kooku nga xam ne mooy intéressé bi laaj ko moom it lan mooy version sun maam yi dañ daan wax bala ngaa toj gémmiñu sàmm xaaral ba xam lu mu walis loolu benn léebu la bu ñu naan léebu bul condamné mukk doomu aadama ca fekk jëkkoo def enquête tubaab yi li ñuy doy waar doy waar dañ naan sans enquête on n'a pas droit à la parole kenn amul droit di wax ci mbir ca enquête yoo ko ba xam naka la tëdde loolee ñu bàyyi ci xel bu baax yonent yàlla Muusa gis nañ ba mu ñëwee fekk xeetam di jaamu aw nag daa riir ca Haaruna rek jàpp ci sikkim bi di commencé diri mu ne ko teeyal teeyal defal nànk jox ko ay excuse am ba ko Haaruna waxee loolu looloo taxit avant muy dal ci Saamiri laaj na ko wa ma xatbuka yaa Saamiri yow nag luy sa mbir ala kulli xaal suñu borom mu ne gaawtu baaxul donte ne it daan ci déggee ne yow mi nga xam ne yarkat nga ngalawaay bul gaaw di découragé bul jàpp ne man kat soxna si sant naa ko bàyyi ni sant naa ko deful kii daal dama koy fase wala dama koy nangam teeyal rek naxanteel sa doom bi nga yar na ko noonu tere nga ko man teraat ma naxanteel naxanteel loolee bu yàggee rek yàlla mën na la may résultat amma lépp loo xam ne teel nga caa découragé rek loolee da ngay gis ne day nekk pertement ci yow moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam di wax ne loolu nga xam ne mooy ak yàkkam ci day seytaane koy dugal ci doomu aadama mi ngi noonu seytaane moo koy xiirtal doomu aadama ajalatu min asheytan bu dee xadis bi nga xam ne moo ci tege mooy xadisu aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashu'mu su'ul xuluq la nga xam ne mooy gaaf mooy jukko ju ñaaw la nga xam ne mooy gaaf mooy jukko ju ñaaw mbokk gaaf xeet yépp xam nañu ko mooy ñu jàpp ne nit ki daal am na lu mu àndal ci gaaf donte ne ñiñ ciy gën a tuumaal mooy suñu mbokku jigéen ñi moom ko dafa gaaf ku ko takk rek loo am dootu ama ci dara wala ku ko takk rek dee wala ku ko takk kaza wa kaza yeneen ci bi alei salaam ne déedéet gaaf daal mooy jukko ju ñaaw mooy góor gi gaaf mooy góor gi ñaaw jukk mbokk jukko ju ñaaw danger yëpp ci la daje ki ñaaw jukkoo mooy wax lu bon mooy jëf lu bon moo dul bale moo dul kaza wa kaza jigéen ji ñaaw jukko it naka noonu looloo tax ci wàllu sëy rasul sallallahu alayhi wasallam joxoon noonu ñi ci ñaari mbir ngalawaay ki ngeen dem ba gërëm ne kii kat diineem rafet na waaye gërëm ngeen jukkoom bu ngeen dee may jabar may leen ko kooku ñu ciy dégg it booy takk jabar takkal ku mel noonu amma ki nga xam ne nii jukkoom dafa ñaaw su nekkoon milliardaire it kooku ko gaaf la jigéen bi jukkoom ñaaw bu nekkoon miss monde it kooku ko gaaf la loolu mooy jukko ju ñaaw donte ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana waxit ne la nga xam ne mooy dëgg-dëgg mbaax albirru xusnul xuluq nee na mbaax yépp njëriñ yépp mi ngi daje ci jukko ju rafet doomu aadama ji jukkoom rafet da ngay gis ne dana tax mu raw naafilekat ya ci julli ci koor ci jihaad ñépp waaja nga xam ne ca farata ya rek la yem waaye jukko ju rafet la yor dana raw ñooñu ñëpp moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bokk ne ki ma gën a bëgg ci yéen ki may gën a jege yowmal qiyaama mooy ñi gën a rafet jukko ci yéen bokk ne ki ma gën a bañ ci yéen ki may gën a sor yowmal qiyaama mooy ña nga xam ne dañoo ñaaw ay jukko ci yéen loolu it moo tax ba julit di war a ñaan fu mu mën a toll yàlla rafetal ay jukkoom rasul sallallahu alayhi wasallam bokkoon na ci ay ñaanam allahuma kama ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi yàlla comme ni nga rafetale sama melokaan te suñu borom mu ne moo bind doomu aadama fi ahsani taqwim yàlla na nga rafetal noonu sama jukko daana wax it allahuma ahdini li ahsani al axlaq la yahdi li ahsaniha ila ant wa qini sayi'aha la yaqi sayi'aha ila ant ay yàlla yàlla nag ma yóbbu ci jukko yi gën a kawe kenn du fa yóbbu kenn du fa yegg lu dul koo ca mën a yeggale musal ma ci ñaaw yi kenn du ci mucc lu dul koo ca muccel loolu kon mbokk mi ngi noonu amma bu dee xadis biñ mujj a jël xadis abi darda radiallahu anhu qaal inna la aaniin ña nga xam ne ñooy rëbbkat yi mooy ñi muulu doomu aadama yi laa yakunuuna shufaa ñoom day duñu nekk ay rammukat wala shuhadaa yowma alqiyama duñu nekkit ay ñu ñuy seedaloo yowma alqiyama mi ngi noonu axrajahu muslim mbokk rëbb mooy ñaan yàlla wàcce mbugalam ci nit loolu ci musiba yi gën a garaaw la am na xadis yoo xam ni rasul sallallahu alayhi wasallam daana wax ne laanul mu'min ka qatli ki jàkkaarloog julit rëbb ko ñaan mbugalu yàlla wàcc moom moo ki ka rey ñoo yem ca wolof yi dañu naan rëbb xam nañ ciy dem di rëbb mën na jàpp mën na bañ a jàpp waaye mbokk ñaan mbugal mën na dal naam mën na bañ a dal waaye mën na dal yonent bi alayhi salaam danañ wax bu leen ñaan yàlla mbugal ci seen alal bu leen ñaan yàlla mbugal ci seen njaboot benn waaye ànd naag moom ci tukki daq daq gileem gi gileem gi bañ mu ne ko la'anakallah yàlla na yàlla rëbb la yonent bi alayhi salaam ne ko ah comme ñaan nga yàlla rëbb ko moom dootul ànd ak ñun ci suñu mbooloo mi nga noonu waa ji teggi bagage yi ñu bàyyi gileem gi muy dox kenn ñi mu koo jege yonent bi ak saxaabam continuer daana waxit ne bu leen rëbb seen njaboot ndax xamu leen fu ngeen di dajeeg waxtu nangu yàlla nangu ko ak bëri ay yaay seen doom tàngal seen xol li nga tàngale sama xol bi yal na yàlla toroxal la yal na yàlla nangam la mbokk loolu musiba la loolu musiba la mi ngi noonu sa doom bu dee jaar na yoon bu bon soo demee ba koy ñaan ñaanul yàlla jubal ko comme da ngay ñaan rek ñaanul yàlla jubal ko ndax cosaan bi moo nekkoon mu baax ñeel la loolu kon la yonent bi alayhi salaam nag ne ñooñu nga xam ne dañuy nekk ay rëbbkat yowmal qiyaama du ñu mbokk mukk ci ñuy ràmmu ca mbokk yowmal qiyaama doomu aadama bi yàlla dana ko may mu ràmmu ngiree jëf yu baax ya ko yàlla gërëmi sawaun dafa dee fi sabilillah wala dafa doonoon borom jaamu yàlla yu kawe ak yu demee noonu yàlla dana may dulit muy ràmm waaye kenn du ko boole ci ñiy seede it ca mooy da ngay gis ne suñu borom subhanahu wa taala gërëm ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ëllëg ñooy nekk di xeete yeneen yeneen xeet yi mi ngi noonu li takunu shuhadaa ala nas wa yakuna rasulu alaykum shahida yéen jullit ñi yéenee seede yonent yu jëkki ne jottali nañ seen xeet yéen nag yonent bi seede seen kaw waaye yonent bi alayhi salaam mu ne ku mel noonu day kenn du ko boole ci xeetu yonent bi seede yowmal qiyaama kon muy jukko bu bon boo xam ne ku nekk ci ñun war nay góor góor góor góorlu ci yar njab njabootam ngir ñu moytu loolu di bañ a génn ci seeni gémmiñ loolu kon bokk moo solo ci xadis boobu nga xam ne imaamu muslim moom it rahimahullah solo na ko
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله اخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع وعن مهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له رواه الحارث بن أبي مسامة بإسناد ضعيف وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله اللذة الخصم أخرجه مسلم
mbokk kon xadis yi tëj bunt bi mooy xadisu muaz ibn jabal radiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه mooy képp koo xam ne danga nekk di saboote di ayibal sa mbokk julit bi zanbin lam ya bi zanbin ci benn bakkaar lam yamut xatta yamala du dee mukk lu dul ne dana jëf bakkaar boobe axrajahu tirmisi wa xassanahu wa sanaduhu munqati munqati doonte ne ne cosaan ba xadis ba fan jaar am na ay dagg-dagg mi ngi noonu ala kulli xaal mbokk xadis bi day wane ci danger yëpp doomu aadama bi nga nekk di ko ayibal ci benn bakkaar bakkaar boobu dana doon ñaar benn waa ji defoon na bakkaar bi ba pare léegi nag nga wëlbatu ko footol naan ko cim jaalookat bi cim sàcc bi cim nangam loolee mbokk julli du defe loolu nga xam nañu ne loolu waxi firawna la keroog ba muy wax Muusa yow yaay fi rayoon nit ila axiri kon jullit ñaar moo mën a nekk sa mbokk jullit mi ngi ci bakkaar laayu ko biir ngir mu bàyyi ko wala bàyyi na bakkaar bi tuub na ko ba pare ngay tuddaat bakkaar bi encore loolu c'est très grave mu bokk nag lu gën a gën a bon nag mooy nga ayibal ko ci bakkaar bu mu deful jiñ ko sàcc ca sàccul jiñ ko njaaloo ca njaaloowul ñu ne loolu yow mi nga xam ne yaa ko ayibal ci loolu bala ngaa dee da nga def loolu su dee ne dëppoo nañ ci hadis ba wér na doonte ne ne la nga xam ne moom mooy li am ci hadis ba wér ak ñàkk wér mooy képp koo xam ne yaa ngi dóoral sa mbokk jurit ko mel noonu jàng nañ ko suñ dar si passé ca mooy xat ba hëtta ne nga ak dóoral muy lu bon lu garaaw lu ñaaw amma bu dee da nga koy wax mu dégg ko loolu it da ngay gis suñu borom mu ne way lun li kulli humazatin lumaza alkaa nga ñeel na ci képp koy tim nit ñi di leen ayibal almuhim daal kon jullit du nekk di fàttali mbokk jullit bakkaar bu mu defoon du nekk di ko duural ci bakkaar bu mu deful mi ngi noonu bu dee xadis bi ci topp ki koy nettali mooy bahz ibnu hakim an abihi an jaddi kooku day nettali ne maamam day nee woon na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waylun lillazi yuhaddis akay alkaange di ñeel waa jee nga xam ne ma ngay waxtaan fa yakzibu li yudxika al qawm mu nekk di fen ngir reetaanloo ay nit waylun la alkaange ñeel na ko thumma waylun la gannaaw ba alkaange ñeel na ko axrajahu salaasa wa isnaaduhu qawi mbokk julit gis nañu ne hadis bi ak ne xool ñu dem ci kanamu rajo yépp ak télévision yépp affiché ko fa ca mooy tey bokk nañu benn métier boo xam ne suñu maam xamuñu ko woon mooy métier nit ñoo xam ne mooy dañuy nekk rek di maye nekk di maye tey ñu leen di jox salaire yu foora foor boole leen ci personnalité yi gën a màgg ci réew mi nan la ko sa diine gisee mbokk loolu ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk ca mooy di waxtaan nit ñi di ree ca li ngay wax dara amu ci naam ñooñu nekk ca studio ya ca animateur ya di ko def ñi ngi ci lu grave waaye mu bokk nag lu gën a garaaw gën a nekk musiba waa ja toog ca palaasu diine nit ñi ñëw jàpp ne kii kat nituk diine la li muy wax ci alxuraan ak sunna la ko jëlee mu nekk di maye rek gars yi naan keng keng keng keng keng keng comme ni ngeen ko yàgg déggee gars yoo xam ne dañuy jël suñu borom def ko comme jallu kuriñ bi fii rek mi ngi noonu nettali lu nekk mi ngi noonu àllaaxira de bañ fa demee am mbooloo mi ñëw malaaka yi ñëw naan looy yéen fu ngeen nekkoon benn góor ñëw taxaw na waaye ñun nga laaj fu ñu nekkoon nes tuuti suñu borom yàlla daal di suunu ci balcon bi daal di na waaw lu xew waa ji na ko waaw mais wa yàlla xanaa sa kii moom ci petit malaaka la xanaa moom moom xamul ñun ñooy ñun mbokk mbooloo mi naan keng keng keng keng te ki doon nettali lii mbokk mas na nekk kilifa gu rëy rëy rëy ci Sénégal benn misaal rek la ci mille misaal loolu mbokk c'est très grave mi ngi noonu ca mooy ba yonent bi dund naafiq yi daanañ def loolu di saboote saxaaba yi di saboote yenn aaya yi ba am ko dem netti li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi woo leen naaw yéen doon wax nangam ak nangam ñu ne ah yu mu yàlla yónni inna kunna naxuudu wa nal'ab ñun dañ doon fa rek suñu borom yàlla wàcc ay aaya jége ko asamaan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un est ce que bu ngeen demee bay fo ak a maye ak a reetaan du ngeen jël cible lu dul yàlla ak i aayaam ak yeneen tam moom ngeen di jël loolee kon mbokko c'est très dangereux la nga xam ne animateur yaa ngi koy def waaye mu nekk super super dangereux li nga xam ne tey nit ñi bëgg mbooloo mi jox leen alal nit ñi bëgg mbooloo mi kontaan ci ñoom ñoo koy def di reetaanlu nit ñi keng-keng bu dul jeex ngiree ci loo xam ne ni wóor nañu ne ay fen la suñu borom yàlla suñu yonente alayhi salaam ñetti yoon ñaanal leen ko mbugal xool leen xadis bu baax daf na waylun lillazina yuhaddisuun gannaaw ba mu ne waylun summa waylun ñetti alkaange ñaan na ko ci ñoom mi ngi noonu doonte ne ni waylun boobe mooy alkaange ci làmmiñu arab allahuma lu dul ni am na ñuy wax ne xur la bu nekk ci biir sawara wal iyaz billah mbokk julit du fen julit lu muy wax day nekk dëgg fen lislaam lam ca may mooy fen say noon ci jamonoy jihaad loolu rek la ci lislaam may wala fen ngir defere diggante boo xam ne wóor na la ne soo ca waxee fen wii day mën naa jubale seen diggante ñaar ñoo xam ne yàgg nañ tuddante wuñu nga dem ci diw na ko ah diw de laa doon waxtaanal moom de mi ngi wax ci yow lu baax xam naa ne day nee na moom bëgg bëgg na rek juboo ak yow dem ci keneen ko wax ko lu mel noonu fexe ba boole leen bañ juboo fekk la nga wax dara amu ci waaye la nga xam ne mooy sa jubluwaay dafa gën a màgg loolu beneen bi lañ ca maye it mooy nit ki di fen ngiree kontaan loo soxnaam waxuñu it fen ngir truande sa soxna wala lor sa soxna waaye kontaan loo soxnaam mooy wax tagg aw lekkam tagg toilette am tagg nangamam loolee mën na am la ngay wax sax yow gëmoo ko waaye rek ngir mu ngi noonu sox soxna si kontaan comme li mag ñiy nett li rek yéen ma ko gën a xam ala kulli xaal mbokk xadis boobu loolu lay wax amma xadis bi ci tegee mooy xadis anas an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal kafaaratu man igtabta lay far bakkaaru ka nga jëwoon an tastaghfira lahu mooy nga ñaan yàlla subhanahu wa taala jéggal ko mi ngi noonu rawahu alxaaris ibn abi usama bi isnaadin daif xadis bi doonte ne ne xadis bu doye di la waaye jàngoon nañ lu mel noonu te bañ suñ premier bind ci dimanche passé yonente bi alayhi salaam bi muy wax naan maa ngi leen di moytuloo jëw waxoon nañ ni waa ji nga jëw ñaar moo mën a nekk mooy nga yéeg ne moom kat yéegoon na ne da nga ko doon jëw gàllawaay ko mel noonu demal ñaan ko balu ko àq ba mu baal la yéegu ko gàllawaay bul dem ci moom naan ko dama la doon jëw lan moo des may waxal ko lu baax loo xam ca it di ñaan yàlla subhanahu wa taala jéggal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ñaan yum ñu jàngaloon allahuma innama ana bashar fa ayu lmuslimina laantuhu aw sababtuhu fajalhu lahu zakatan wa ajra rawahu muslim yonente bi alei salaam da doon wax naan ay yàlla man nit rek la ca mbokk nit day juum da ngay wax léegi benn wax balaa trois minutes nga rëcc ko jëf léegi balaa trois minutes nga rëcc ko ay mi yàlla yónni man nit rek la jullit ñi képp koo xam ne nii sama làmmiñ rëcc na ba ma rëbb ko wala ma saago ko wala ma wax ko wax ju bon loolu yàlla na nga ko soppital defal ko ko zaka zaka day firi ak sellal mi ngi noonu comme ni muy firi joxe alal waaye day firi ak sellal waaye it bindal ko ko tuyaaba ju koy xaar yowmal qiyaama waa ji ñaan googu bu ko yàlla nangoo da ngay gis ne la cay juddoo ci tuyaaba dana ëpp àq jëw ba nga ko jëw almuhim ñaan la bu ñëpp di war a wattu di ko ñaan lu bari mooy yàlla man nit la damay juum sa bépp jaam ci sa jaam yi boo xam ne tooñ naa ko yàlla na nga ko soppil loo xam ne dana ko laabal yàlla na nga ko soppil loo xam ne dana ko nekk ay pay ñeel la ay riwaay yu bëri warat na ci loolu am na sax riwaay ba cay dolli yàlla na nga ko defal qurba ak jege goo xam ne nii dana danga ko jegee la sa bopp yowmal qiyaama lan muy muhim kon ñaanal yàlla jéggal ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala yërëm ko ca it nga daal di tuub loolu rek la ñuy wax ca wàllu googe kon loolu mooy lu aju ci xadis boobu bu ñu xoolee xadis bi nga xam ne moom lañu xadis bi nga xam ne nii moom lañ mujj a jël moom mooy xadisu yaay Aïcha radiyallahu anha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم ki yàlla gën a bañ ci góor ñi mooy ka nga xam ne dafa tar nu muy dagg sante aladd mooy ki nga xam ne toujours dafay li nga ko daan wax li nga xam ne muy pindu teen bi nga xam ne foo ko laale rek mu dem ca beneen pind ba ca mbokk xadis bi it lim ñuy jàngal mooy ñi ngi dund jamono joo xam ne safaanoo na ak suñ jamonoy maam yi moo gaa yi yéen ñi yàgg seetaan télévision ndax mas ngeen a gis benn débat télévision entre des syndicalistes entre des politiciens entre des lu mu mën a doon ñuy débat di débat bu mujj ku ne jox sa morom loxo di ko wax nga dëgg ndax loolu am na abadan dañuy débat di débat ba jóge fa ku nekk di joxoñ sa morom loxo léeg-léeg ñu débat bu mujj kurpeñ yi tàkk loolu lañu xam waaye mbokk loolu du jikko jullit jullit mooy ki nga xam ne heure boo xamee ne ni dëgg ñëw na ci moom day nangu dëgg googu day nangu dëgg googu moom la suñu borom yàlla subhanahu wa taala li ñu wax ya ayuha alladina amanu kunu qawamina bil qist shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u lhawa an taadilu ngan la waay yéen julit ñi doon leen aji ñuy taxaw ci maandute di séedee la nga xam ne dëgg yàlla tax même boo jàppee ne sa kaw lay dal na am yéen a ngi xëccoo débat ci benn mbir waa ji indi argument yu wóor ana ko ah sëñ bi kat maa juumoon lii moom xawma ko woon li nga wax muy dëgg mbokk loolu bu la yëkkatiwul du la wàcc jamais loolu da la yëkkati ci bëtu nit ñi suñu borom nag mu ne dëgg yi bu dee day dal sa kaw wala muy dal ci say waajur wala muy dal ci jegeñaale in yakun ganiyan aw faqira waa ji dafa woomle wala dafa ñàkk xam leen ne seet ngërëmal yàlla moo gën a yey seet loolu am déet ñi ngi débat peuple public baa ngi leen di déglu d'accord mais yàlla ngi leen di déglu léegi yow nga wax li nga xam ne ci la ngërëmal yàlla la nekk est-ce que gënte yey nga wax loo xam ne yow sa bànneexu bakkan moo ci nekk wala say waajur kontaan wala say ay faqir kontaan loolu moo tax ba mbokk julit suñuy jàng bind yi dañ koy jàng ngir fàttali ko waa cosaanu lislaam cosaanu lislaam nag heure boo xamee ne nii yaa ngi dem ba di ko fàttali ko waat dana doon loo xamee ne nii dana la mën a jàppale ba nga mën a mucc ci lii ñu tey dem ba jàpp ne lii rek moom mooy dëgg lii rek moom mooy dëgg ndax nit ñi moom la ñuy gis guddeeg bëccëg rawatina la nga xamee ne nii mooy suñuy njaboot gi di dund jamonoy politique waa ji nekk ci parti politique am lu fa mën a nekk A ba Z lépp dëgg la lépp lu baax la ñi nekk ci beneen parti la fa nekk A ba Z lépp caaxaan la lépp ay wor la bis bu jógoon changé dem fële dëgg ga nekkoon fële nekk caaxaan caaxaan yi nekk fële nekkul dëgg mbokk loolu du yaru lislaam te it nekk loolu yaru suñuy maam nañu xam ne lii ñu naqari ci penc mi yépp culture tubaab bi moo ko fi dogal waaye suñuy maam la ëppoon ci seeni jukko jukko la yoo xam ne nii yu dëppoo la ak lislaam mi ngi noonu am na ci ay conférence ñu doon di fi ci ay rapport bokkoon na ci ñoom Iba Der Thiam ak yenn ay xalaatkat ñuy def comparaison jukko yi ñi doonoon ci sunu maam yi ak comparaison l'islam daanaka lu néew a néew lañ ca gis mu am différence bokk na ci rek lu mel ne ni ñuy seen ni ñu yéege woon seen bopp mbilim li ci ñu daal di attana xaru ngiree daw gàcce ak yu demee noonu waaye bu dul looloo da ngay gis ni jukko yi l'islam di jàngale quatre-vingt-dix pour cent yi fekkoon na sunu maam yi jukko woo ko d'abord dañoo bañoon fen bañoon wor yaa fi wax lu amul déedéet yaa fi jël alali jàmbur déedéet sàcckat kenn du ko jege naankat duñ ko jege doxankat naka noonu carte ila axiri mook da ngay gis ne bari na suñuy maam yoo xam ne mosuñoo tiim alxuraan ñu firi ko mosuñoo tiim hadis yonent bi ñu firi ko waaye da ngay gis ne jukko yu tedd yooyu yëpp yàlla subhanahu wa taala defan na ko ci ba baa nag ñu jaxasoo culture occidentale ñu wëlbati ñu complètement teppe la ñoo suñuy aadamaam yóbbuwuñu ci lislaam xanaa yóbbuñu ci seeni xalaatiin ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla leeral diine suñu biir xol suñu borom mi nga xam ne mooy teeti ci ay jukko yal nañu teeti ci jukko yi gën a kawe yaay taxe ñu texe àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw alhamdulilah xam naa bokk na rek lu ñuy fàttali waat mooy ci wàllu sujuutu sahwi dañu xam ne boo ñëwee ci jàkka ji nga fekk imaam def na ñeenti rakkaam yow nga dugg ci julli gi amoon moom benn rakka borom xam-xam yi dañ naan sujuut ya muy sujuut yow doo ci ànd ak moom fañ ko tegit mooy la yonent bi alei salaam doon wax man adraka rakaa faqad adraka salaa ki fekke benn rakka fekki ne julli gi ñu ne kon maadaama yow fekkoo benn rakka doo ànd ak moom sujud léegi nag fekk nga imaam def ànd nga ak imaam benn rakka wala lu ko ëpp su boobaa su imaam dee sujud avant muy sëlmal yow da ngay ànd ak imaam ci sujud boobu su imaam pare nga jóg mottali dootoo sujutaat teggeeku na la amma bu dee da nga ñëw dab imaam ñu dem ba mujj imaam sëlmal nga gis ko muy sujud yow teewul da ngay jóg taxaw mottali la la imaam rey woon ba pare yow it boo sëlmalee nga doog a sujud loolu kon da ngay gis ne moo aju ci wàllu sujud sahi boobu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam waaleykum salaam wa yére bu am ndax jullit war nay sol yére bu am dessin déedéet mbokk jullit loo xam ne nii dafa am ay dessin ay ruux jullit du ko jël di ko génne fu mu toll mu ànd ak moom su dee munta ñàkk na doon loo xam ne lu ñuy jiital la nga jël yére teg ci kaw yonent bi alei salatu wasalaam di doon rëbb ñooñu nga xam ne dañuy dessin ay nataal yu am ruux ca yére ya ca maa ngi ciy jublu lu am ruux mooy nit la wala ay bàyyi ma bu doon ay fleur la ak yeneen loolu lu amul problème mais bu dee nit la ak bàyyi ma yonent bi alayhi salaam danaan wax naan ñooñu nga xam ne ñooy dessin yooyu day yowmal qiyaama lañ leen wax léegi nag yéen a ko defaroon kaay leen ngeen dugal ci ak ruux maadaama kon lu dangereux la loolu moo tax ba julit moom du ko sol di ko génne allahuma lu dul fekk lu jiital la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam naam bismillah koo xam ne soxnaam dafa dóor yaayam luy àtteem ci lislaam la ñuy jëgg àtte mooy lu yaay def lu yaay def bañ dóor ko alaa kulli xaal loolu moom ay mbiri àtte la loolu moom ay mbiri àtte la mu ne suñu mu tëb rek ne lii ak lii lañ cay wax alaa kulli xaal jullit daal bokk na chance booy am yàlla jubale sa yaay ak sa soxna amaa nag sa yaay ak sa soxna juyoo moom loolu mooy fitna lay jur mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw bal ma ah ah nday di rek lan waaw loolu koy laa wax dama ne su dee da ngaa ñëw fekk imaam di sujud avant muy sëlmal loolu mooy qabla salaam da ngay ànd ak moom ci sujud bi léegi nag nga ñëw fekk imaam julli na ba sëlmal loolu mooy baada salaam bu boobaa yow da ngay jóg doo sujud boo fayee ba pare doog a nag sëlmal doog a sujud comme ni imaam sujudee naam bismillah waaw salaam ndax ki nga xam ne dafa xeesal nga ne kii dafa dafa doon ko xeesal wala kulli xaal lan moo tax ngay wax ne dafa xeesal bu doonte ne ne nit daa ñëwoon daal di la laaj koo xam ne dafay wax ci wàllu soxna la nga xam ca soxna sa dara nekku ci mooy sëñ càmm nee na moom soxna su xees la bëgg ah léegi man de du laa bëggoon nga ne ko ah kooku xeesul la daay xeesal yaa ngi dégg loolu moom lislam du ci wax dara am naa nag soxna bi xeesal amul benn motif bu tax nga taxaw rek naan diw de day xeesal loolu moom vraiment nekkul loo xam ne ni lu jaadu la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaw day waaw am na pré lonage waaw waaw waaw wala ku li xaal day loolu moom bu dee mën na ko moytu loolu mooy la nga xamee ne nii mooy la gën ci moom maadaama wóor na ko ne kayit yi ñu ko indil ay kayit la yoo xam ne kayitu jeu la yu ñuy multiplier pour mën a tasaare ay jeu loolee moom la nga xam ne moo gënoon ci diineem mooy mu moytu loolu ndax la suñu borom di wax naan taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan dee leen dimbalante ci luy jur njëkk ak ragal yàlla bu leen dimbalante ci loo xam ne ci bàkkaar la jëm te wóor na ko ne fëy yi ñi mu nar a moom di multiplier ci machine am mi ngi nar a jëm ci ñoo xam ne dañ ciy def bakkaar te mooy dañ ciy joué PMI boobu nga xam ne PMI bu bu xaram la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal bismillah waaw waaw ah naam waaw waaw dañuy ñëw ci moom effectivement mi ngi ci wax naan bu doon track yu ñuy interdire wala journal yu ñuy interdire pour ñu imprimer ko yow boo ko imprimer da ngay am problème donc it li yàlla xaraamal jurit war na moytu loolu naam bismillah mbokk bi waaw ah waaw waaw jëw mooy nga waxal nit ki lépp loo xam ne bu ko déggoon du ko neex lii rek mooy jëw mais lépp loo xam ne wax nga ko nit ki te bu ko déggoon amul lenn lu ko ci naqari loolee kenn du ko tudde jëw yonente bi alei salaam da koo tënk mu ne zikruka axaaka bi ma yakrah ngay tudd sa mbokk jullit ci lu ko neexut waaye lépp loo xam ne bu ko déggoon da cay kontaan ah masalan ah diw ak a baax foo ko fekk mi ngi jàkk ak a diw ak a baax foo ko fekk mi ngi jàngal quran loolu koy xam ne ne bu ko dégga dem ci kontaan kon loolu moom taxul ñuy wax waaw xam naa kon ñu jéggal ñu ñu mujjee ci mbokk bi rek waaw bismillah waaw
da ko doon wax yàlla nga doon imam chaque fois bu ko defee lu ko naqar rek mu ne yaayam loolu la ko doon mu ne kon jigéen bu ñu wax doomam bu baax bu ko meree mun naa am ñeent ak moom waaw waaw waaw ala kulli xaal waaw kon yàpp naa dégg ngeen li mu wax ci li mu wax ne imam Sudi si day wax ne bi muy xale xawoon de terrible mais bu ko yaayam mere woon bala mu koy dóor wala mu ko nangam da ko doon rëbb naan yal na yàlla jubal la yal na yàlla def la njiit ila axiri ba yàlla nangu ñaan googee mi ngi noonu ala kulli xaal niñ koy waxee rek mooy suñu borom dafa am waxtu yi muy nangu ñaan ajjumaa ngi nii yonente bi alayhi salaam nee na am na ci waxtu boo xam ne lu ci jullit ñaan yàlla may ko ko loolu tax jullit dafay war a bëril ñaan ca di de moytu heure buy ñaan muy ñaan lu baax tàmmal ko sa bopp ci yow sa njaboot ak ku mën a doon heure booy ñaan rek del ñaan lu baax ndax xamoo fan la yàlla subhanahu wa taala di nangoo ñaan yi yal na yàlla dëppal la ñoo ñaan yu ñuy jëriñ àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain